jërë ngeen jëf ci tewlu bi yéen ñi safoo site internet bi di Buzz MTV Sénégal li gën a fës ci bopp xabar yi nag dañu koy door rek président de la république Bassirou diomay Diakhar fay daal dinay yëkkati kàddoom rek ñeel ko accident yi nga xamante ne rek moom moo daal di am foofa ca diwaan bu Yambong nekk ca diwaan bu Madianen nekk ci route nationale numéro 1 nga xamante ne rek soriwul dara ak Koungheul ca diwaan bu Kaffrine waaye nak nee na daal ma ngay jébbal njaal njaboot yi nga xamante ne rek ñoom ñoo ñàkk seeni doom ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo ñàkk seeni mbokk ci boobu boobule accident ma ngay ñaanal nag ñi ca jëlee nag gaañu gaañu yàlla saafara leen ci mbir mu nu mel nag daal ma ngay sàkku rek ñu daal di rek mobiliser ñëpp bu ko defee rek ñu mën jàppale ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo gaañu ci yooyu le accident ak ñu ko jëlee nag ay gaañu gaañu yu mag ne nañ daal mbir mu nu mel ma ngi cay ñaax nag tey ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy dawal kotu oto yi maanaam transporteur yi ñu daal di respecté lii di code la route bu ko defee rek ñu mën a moytu nag jëye ji nga xamante ne rek dinañ koy faral di gis nag ci yoon yi ba tey ma ngay sàkkuwaat rek beneen yoon ñu respecté lépp loo xamante rek dafa ñeel règle sécurité routière bi ne daal mu ngay mastaw bu baax nag njaboot gi faatule ci boobulee accident ba tey rek ci boobulee accident nag la ñu nga koy xaar nag ni tey jii euh, foofa ca diwaan bu Koungheul ca région bu Kaffrine ñu fàttali leen accident bi nag fukki nit ak ñeent rek ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan ñeent fukk yi nag ci gaañu gaañu yu métti métti ci total bu ñu nga xamante dinañ koy totaliser ñu fàttali leen nag yëf ya mi ngi daal di xew euh, foofu ca diwaan bu Koungheul nekk ca région bu Kaffrine ab bus rek moom moo daal di këpp nit ki démb ci alxames bi bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ bi ñu nag wàllum wér-gu-yaram nee na bilan boobu nag fukk ak ñeent ñoo ci jëlee gaañu gaañu yu ñoom ci seen jëmi bopp fukk ak ñeent ñoom ñoo gaañu sur le sang ñeen fukk yi nag daal di ciy jëlee gaañu gaañu yu métti métti mbir mi nag mi ngi daal di xew rek nit ki démb ginnaaw bu 19 heures jotee ci route nationale numéro 1 côté dëkk bi ñu duppee Yamang nekk ca département bu Koungheul région bu euh, Kaffrine ne daal autorité ci seen jëm bopp rek ñu ngi leen di ñaax ñu daal di rek toppatoo bu baax ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo daal di accidenté ci boobulee oto jërë ngeen jëf ci teewlu bi leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mën a am yeneen i xibaar